wa salaamaaleykum wa rahmatullah ah bu ñu ngeen baal ma sëriñ bi maa ngi jéggal suñu liggéey lu mel ni ba agsi fii faw ñu wax sëriñ bi rendre ko compte foog ñu def compte euh, rendu soppay imam Jaber ni ma ko waxee ak bi ñu fi njëkk ba ñu ñëwee ci ñun sopp ñu ngir jëmm yàlla ak yonante bi ak Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif dama ni leen man de mënuma yenu samet yéen kebe bañ ma waxee ma ni leen man mënuma yenu su ngeen ma soppee man ngir jëmb Seydi Hadji Malick man dafa am ma sopp te li may wax bëgg naa ngeen déglu ko man leen ma waaw sëriñ leen man dafa am ku ma bët muy suma sëriñ suñu sawaat si si ñu ngi dalal sëñ Moustapha Sy bu xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour wuyu si Pape wuyu si Pape wuyu si Pape waaw waaw sëñ Moustapha Sy bu xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour sama cheikh bu Makka sama cheikh bu Makka ba loolu amee yàlla dogal ñu organisé wu mané len nak ka ñu dem ñu dem ci ki nga xamni mën na yel bu yenam bismillah suñ Babacar Si Abdoul premier année bi wax ko suñ wax wàññi wax di way may ko tuti dama ni leen mom mo am ay magam Mom hmm. am na khalifa doomam mi ngi am na pap Maodo am da ay magam mais ñun mom lañu am hmm. te papa yëgal ni jeune yépp la sopp gisna naa benn vidéo nga ni xale yi xamna ni sopp ngeen kon fonku len seen wayjur ñi nga defar ci réew mi à travers ci say waxtaan wallahi barina tax li dañu ñëw rek xeddal suñu joxel suñu diggante ñun ak yow lutax choix wu seigne martan jay al Amin yonent bi alayhi salatu wassalam discours bi mu mujjé def ci hajjatul wida daf ni fal yu ash ashaahid minkumul gharib kifi nekul na jotal kifi nekul yéen ñi fi ne jotal leen ñi fi nekkul loolooy roogalaat ba tey ay nitam ñu sopp di ñu teral ci àdduna bi à travers Mahtar Ndiaye abdi lam yashkur nii biza lam yashkur man ajra fi nimat ala yene te programme diine professeur Cheikh Ahmed Tidiane nii chef de religieux ak sëñ Aliou Diagne mën nañ seede ni moom xamul dara ci programme maanaam moom day xëy rek teel ñu ne lii mi ngi nii maanaam pour wan xurriya bi nga xam ne jox na ko borom xam-xam yi ba mu leen wóoloo jeex na naam amuñu fa salaire waaye wallahi mi ngi ñuy teral Muxtaar da lay teral nga woo ko ne ko est juumoo ngir bëgg njabootu Seydi El Hadji Malick boo ni ko woon tey Alaaji Malick soxna léegi un milliard du la ñuy déedéet mënu ma danaan waaw Alaaji Malick a ko ñëw Muxtaar yal na la yàlla fay ñun ustaas yi kontaan nañu ci yow mm. ndax xadara bi moo ñu boole Seydi El boole ñu nga samp malikiya samp ko te yàlla tax te li ngay def ci suuf ci kër njaboot Cheikh El Hadj Malick ñëpp xam nañu ba ziar bi amee ma wax ne ko ni yow yaay yow yaay parrain bi nga ne ma sëñ Babacar Abdou maa ko soppal sam li ngeen di teg ci loxom maa koy teg ci loxom te fi ñu toll nii Valence la jógee Espagne mu ni ma day delluwaat léegi ci guddi gi dafa dagg biir ñëw ngir sëñ Babacar si Abdoul Aziz waa ku fonk si sëriñ gaa ñi Matar jërëjëf jërëjëf am na lu dal wàlliyaan ci ay télévision nga xam ni dañu daan mosal ay gàmm mosal ñu ay waxtaanu parce Sëñ Bay Abdou waxtaanu Pape Sëñ Cheikh léegi tout le temps ñun ñëpp Malikia guddi ak kon nag Maxtaar jërëjëf bi di gërëm soppe yi imam Jabel jiiral ci aaroona lii ak ñi mu àndal xale yi sol ci set bëgguñu ku yow hmm. luñ ma defar yow sa jëmm moo tax wallahi alazim say waxtan lañuy tek groupe bi ñi ngi jàngale ndax dari ñi ngi jàngale njàpp ñi ngi jàngale julli weeru koor bu ñëwee ñu ñëw ziar si la ak bu jotee ñu ñëw ziar si la nee naa leen lu ngeen ma war a defal defal leen ko sëriñ kon nag sëriñ bi loolu su fi amee ñu koy def ay weer sëñ maxtaar ni lu ngeen fi jàllale ci information jàllaleen ko gratuitement kon loolu su ñu ñëwee man dinaa la rendre compte ci loolu ñu am ay cadeau tam euh, pour wu leeral ni mënoon naa la ko jox waaye xam nga wolof il faut ma leeral ni kado yaa ngi nii yi ngeen ma yóbbante ci sëriñ bii ku ñu wax Noyin Sarr al amin daf ko gis ci facebook bi sopp sëriñ bi ni moo la jox parfum bi nga ñaanal ko mi ngi ko tuddee parfum al amin moo la jox lii nee na bii sëñ Moustapha moo ko moom Moustapha Sy waaw doomam bi suma xarit waaw beneen bi parce mbay Abdou ko moom kitam dalu marakis la yo xamni ñom ñoo la ko ñom xalé yi bi ñi ngi ko def maktan jay al amin nee nañ na sol yere bi yere la bu ñu ñaw jox ko waaw bi tam bi serigne be ko mom juma ji may jité di juma marché aslam H&M. ben way euh, bu mi ngi sante yag mi ngi nele euh ko jox serigne bi ki neena mi ngi ko jox serigne lamin ñang mi doon waxtan legui la moom momit mi ngi marché aslam H&M. di fa liggéey moo ko jox lii fa bii tam ñoom ñoo ko jox euh, sëriñ bi xaw na bari damay euh, iwante ko waxtu wi bi tam ñoo ko joxaat sëriñ bi am na beneen bu ñu jox sëñ Makhtar Ndiaye Amin mooy lii nee nañ euh, sijaada bi la bu ànd ak parfum ci biir ak maanaam tissu bi ñoroo ko ñëwal lii daal lañ mooy yóbbante la jox sëriñ bi tam jox naa ko ko fa tabaarakallaa mbokk yi lii mooy kàddu yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, télévision yi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ci jàpp jigéen ñi ñu teg nuyoo bi ci loxol soxna a Aw mu yóbbaale géew jigéen ñëpp xale yi na ci organisation bi soxna si tam ñëw na ak suma waa fami yi ma bokkal ndey ak baay teg ko ci loxol astu mu jotal ma ko ñëpp sama yaay itam suma wujju bu ko far ci ñaan moom it mage ak tawat nga ñaanal ko cofeel boobu la am ci yow ñi ci jàpp ñëpp dégg ko ci télé bi rek ñëw te yàlla tax sopp ñu te yàlla tax dugal ci seen alal yàlla mi mën a fay yàlla yàlla fay wàccee si maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara ah nañ ko def rek at bu jot ñu organiser wu euh, sëñ Mbaye ak Oustaz Dieye maa ngi ko fi séenu ku bari xam-xam waaw maa ngi lay nuyu bu baax di lay ziyaar di gërëm ay boroom xam-xam rek fi nekk ah di gërëm sëñ Alioune Diagne ak daara ji ñoom Cheikh Fall ñoom Mabba ak suma yaay soxna laal la Ñang moom it fa tabaarakallaahu ah taxawaayam rafet na waañ wi macha allah liñ ko jox sax bariwul waaye fa tabaarakallaahu mu defaral ñu añ yu am solo moom it yàlla mi mën a fay yàlla ko yàlla fay gërëm suñu bàjjan di bàjjanu groupe bi di soxna Fass si bu Cheikh Al Hadj si Sy Dabakh moom it suñu waxandoor la suñu yaay la suñu soppale suñu xarit lu ma fàtte ngeen baal ma jégal ma oustaz Babacar Sall ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ak waa Juma marché HLM Souleymane ak ñëpp aaroona gërëmal ma ñëpp sant ma ñëpp loolay kàddu ngeen baal ñu ñiy jël wérd nañu tàllal incha allah sëriñ bi jox leen wérd ñoom it ñu jël ko yàlla nañ ko téewee déwén waa ëttu Mam Maodo ak ñoom euh, jamaatul malikiya ah ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm Babacar Kassé ah, ak ñoom Moustapha Mbaye jërë ngeen jëf ah, xale yi yàlla yàlla fay leen Alioune Alioune Badara Ndoye day def programme samedi bii di ñëw fële ca Pikine le 27 incha allahu taala sëriñ bi loolu rek ñu ngi bal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Amin. Ah. ni nga ko bëggee léegi. waaw jërëjëf sëñ Moussa nee na dafa jaay café yomb na waaye jaay kafe gu neex moo jafe kafe gu neex gi ñëpp di wër ci réewum Sénégal di café Amadar Manko café gi neex na set na sell na ndax ci anam bu jaar yoon bi ñu ko liggéeyee boo leen amee ay xew-xew lu ci mel ni màggal wala gàmm ba ci seeni kër taamul café Amadar Manko ndax moo lay jox guu bi nga soxla ci kafe teg ci dalay yokku cawatee ndax dañu ko def ci anam bu mucc ci ay te li ci gën a neex mooy tàngala sa ndox ba mu tàng ne ko ca pëyi def ci suukar am nga café gu neex café Amadar Manko moo mel noonu mën ngeen ko fekk Kër Massar jaxay de rond-point marché mardi bu ngi démé da ngeen fa fekk gérante bu am jom ba paris service lol di ndey Fatou Ama di leen téru téral leen jaay leen café gu mucc ci ay bu ngeen mës a gis wala ngeen wara gaaw ci numéro yi ngir ngeen def seen ay commande ci ni gëna gën 77 369 94 37 wala 78 552 30 20 café Amar dar mango moma doy ci café ndax lima soxla moma koy jox nabi wa alayhi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 حسين لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا